dëgg la xam nga li nga yokk sexe. waaw day ëpp de euh, c'est que des fois. côté boobu man ma ci doon bëgg waxtaan li ngay wax li nga li nga wax moo tax ma lay leeralal quoi. parce que dama ci benn copain. copain bi ñax la. est-ce que yaa ngi dégg. gars yi déedéet ñu di fekk si bu baax. bu baax ba benn jour ma laaj ko ma ne ko lan moo tax yéen ngeen dëkk suñu saay bi suñu sénégalais di leen seet chaque jour. Mm-hmm. mu ne non ñii dund ak ñoom la produit boobu ñuy dund ñuy jënd di ko def seen sax di ko dund di ak gel yi. day tax ba gel yi bu ñu demee suba dañuy ñëwaat. mais naturellement. produit bi ban ban façon produit bi moom la. dañ koy jaay produit bi jigéen ñi ko utiliser wala góor ñi. man xaw ma. non loolu dinañ ci ñëw de. mais moom en tout cas ki ma ko wax góor moom ko wax. parce que parce que parce que loolu dem la. parce que jigéen ñaa nga jël ay produits di ko utiliser. déglu ma ak yéen i sax léegi mënu ma concevoir man mënu ma concevoir ay étranger ñëw fii. waaw suñu gel yi langal leen ko topp leen. Euh, si yaa ngi dégg ñoom ñoo ay produits yi def. non dafa am na. ñoom dañu mystique wala lan. du question de mystique de du question de mystique. loolu produit ay affaire de pharmacie la bokk. produit aphrodisiaque ay garab la yooyu yooyu ñu jaay yaa ngi dégg ñoom yooyu la ñuy utiliser ay ñàkk jëlee nag langal leen ko waaw ay ñàkk man maa la ko wax. maanaam danu danu saf wala lan. comment lu mu demee côté yokku côté yokku sexe la ñu wax. buñ ko dóoree buñ ko dóoree seen action yi. sa daaneel laa bëgg a buñ ko dóoree seen action yi. affaire bi day day mat. yow est-ce que waxuñ la sa secret bi sax non man non man non man. wuy ma non man wuy ma non man tàmbal ma ko lool. il faut mais Paja le problème mooy il faut ngeen bàyyi si ngeen di dugg. yow est ce que yow sa gars yooyu noonu waxuñ la secret yi nekk ci biir. non man waxuñu ma secret parce que man ak ñoom dañoo dëkkoon may gis chaque jour ñuy gunge. waaw mais nit ki boo gisee chaque jour may gunge. Ah. waaw waaw gunge woo ci. non man man dafa ma jaaxal ci côté man su may gunge ñoom duñ ma gis gunge bi de parce que dafa man su may gunge. man su may gunge man yow ki nga wax na la ah. ñoom duñ ma gis mais. dafa nekk loo xam man chaque jour ñoom man fréquenté man Sénégal la man côté man fay chaque jour. affaire la wala. non ma la ñu dugg ëpp. affaire la wala ci ak côté mais côté bobu la ma quoi. ma carrément lañ nit la la ni yow nga ci non non non non jamais man du ma dund loolu man dama naturel man dama naturel te man sax côté boobu man du ma ko àdduna bi lu ne dafay am <laughs> côté boobu buy ma xam nga déglu ma dama lay expliqué dama lay expliqué xam nga àdduna bi lu ne dafay am mhm. ay yokk bagage mm-hmm. non baaxul sax non côté boobu baaxul man digaluma ko benn góor mu ah loolu boo dee ba ko dafay am xaw ma ngóor ak wa mun deme ba sen affaire lase fu ñu wa waaw lase mooy. parce que produit yi ni diw. wa nga ni yow. dafa am jigéen yoo xam dañuy jënd ndaw. Hmm, jënd ndaw comme si ñaata naturel boobu ci yéen. waaw waaw loolu loolu am na am na am na koy def dañuy dem pharmacie bu ñuy bu ñu di maye. jënd ndaw moo ne pour xam nga bu ñu di tëddee. Hmm. bu ñuy bu ñuy tëdd bopp pour te dire. cest à que naturel bi ci yéen la man man bu naturel bu hmm. dafa naturel bala bu naturel bala koy xam mu ci muy door a yeew bu deful dara ngay xamante ni kooku dafa naturel mais jigéen yu dayee ci mbedd yi nii man du ma ci wax kenn te du ma ci jéem a wax ak ma ci jéem a euh, intercepter kenn parce que xam naa ne naturel la ñu bu ma xoolee seen defaru rek kii moom léegi yow loolu soo ko jëndi hmm. il paraît même bu fekkee ne yow sa sa sa borom kër tëddoo ak moom hmm. ah am na ay risques yu ci nekk hmm. léegi lu ko jaar man yéen laa koy laaj yéen si yéen laa koy laaj yéen laa koy laaj parce que ça existe là mais yéen laa koy laaj yéen laa laaj yéen koy def am na ñu koy def am na ñu koy def am na loo xamante ni moom loolu moom lii ma lay wax loolu li ngay wax dëgg la ndax loolu am na fu mu xewee mhm. am na jigéen am na jigéen ba nga xamante ni bi jëkkër yi dafa war a ñëw woo ko téléphone ba mu woowee na ko maa ngi ñëw dafa dem hôpital ñu ñëw ko ñëw lan dañ koo ñëw waaye léegi loolu nan léegi nag jëkkër ji ba mu tëddee ak moom dafa sañe sañe ba nga xamante ne bii danoo dem ba sañe bi da leen a jaaxal ñu yóbbu ko hôpital ñu ne kii dañ koo ñëw xam nga loolu naturelul naturelul